ñu ngi lay euh, fay bu baax suñ jaxate di nduyu askan wi nga xam ne ñuy seetaan ñëpp euh, di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla suñu bopp nawet bii ñu nekk te jub ko suñu borom defal ko nawetu jàmm ak salaam nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. Mm-hmm. alors su ma doon présenté euh, ñi ñuy seetaan maire bu commune de Diourbel Malick Fall moom mooy kan fan la jàngee ci lu xam naa tënk rek fu mu jàngee fu mu ganee. xam na ne Jurbel la doomu Jurbel la hmm. waaye ci jaar-jaaram ci wàllu ndaw waaw lu ma ci mën a wax euh, mooy euh, donc comme nag doomu Jurbel la donc euh, bu ma jàngee def naa dem naa ba am BFM bu ma amee DFM def naa seconde alors donc après fa la sama jàng yam waaye boo xoolee nag man ci presque entrepreneur la donc je suis un homme d'affaires donc dama nekk ci construction donc avant may euh, ñëw ci mairie bi wax dëgg neex yàlla presque lu ci bari def naa ko euh, jaay naa boutique euh, jaay naa ay gaz jaay naa fëgg jaay lu lu bari daal def naa ko ci liggéey bu sew ba yàlla dimbale nag donc ma nga xam ni sama papa yàlla na yàlla yokk leeram entrepreneur la woon donc ma jël métier aussi muy entrepreneur commencé def construction macha allah yàlla dimbalu ma ci lu bëree bari ba tey ji aujourd'hui ba tey moom laay liggéey mu nekk benn entreprise bi ñu EGB donc ci loolu laa nekk nag doon liggéey di liggéey ci la ma doon am nag yàlla dama ko wërsëgale ma xam ni doomu Jurbel laa ma doon contribuer nag di jàppale ci waa Njaareem ci sama am-am lu mu néew bari di ko dund ak ñoom di ko bokk ak ñoom di ci liggéey nag di ci liggéey ci liggéey ba nit ñi gis ko nag am yéene nag vraiment ni daal vraiment ki nga xam ni. da ngay ñëw di jàpp di liggéey di jàppale sa dëkk te nekkoo maire ah bu ñu la jàppale boo nekkee maire xëy na da nga mën a def dara ci loolu nag la ñuy créer mouvement gëm sa bopp ba ñu créer mouvement gëm sa bopp nag ci la ñu ànd ak coalition defar suñu gox en deux mille euh, deux mille quatorze avant deux mille quatorze deux mille douze demoon nañu élection député alors donc euh, yàlla sotti lu ko à deux mille quatorze ñëw. ci la suñu borom def te ji ma nekk maire Diourbel depuis 2014. Euh, mu nekk lu am solo ci wàllu jaar-jaaram mais euh, fi nga xam ne moom nga doon yëngu def nga doon jàppale askan wi yaa ngi doon jàppale ci wàllu social. Hmm. Euh, léeg-léeg nag nit ñi dañuy jaawale sociale ak ngistal wala boog social boo xam ne ni social intérêt lay doon. Hmm. lu ni mel dégg nga ñu la koy jiin wala ñu la koy waxal. ci loo hmm. xam ne maanaam yëguloo ko woon. ak noo doxalee ba d'après bi nga ko yëgee. boo tax sax man li ma jàpp suñu àdduna mooy saa ñu xëyee war nañu sant yàlla sunu borom ndax tey ñu ngi toog fii di wax mais aujourd'hui am na ñu nekk hôpital tey ñu ngi feebar taluñu dara lu métti boobee même bu doon benn seconde mu bàyyi leen tuuti ñu feexaat mu ñëwaat seconde ba ca topp kon bis bu nekk da war a sant yàlla ba nga xam ne tey man tey defuma dara tey ji pour suñu borom def ma nekk entrepreneur defuma dara tey jii tey suñu borom day def ci yàlla dimbali ma nekk ay chiffre d'affaires yu bëree bëri ba am xaalis ba mën def dara kon donc kon ñi nga xam ne tey aujourd'hui euh, tey dem nañu ba néew doole def ñu dara nag pour néew doole comme man def ma dara pour yàlla def ma am yàlla def ma am tuuti moyen kon war na noo xalaat ñi nga xam ne tey jii seen loxo feetul seen ginnaaw ñu jàppalante yàlla tax dimbalante yàlla tax ki feebar amul lu fajo yàlla dimbali nga am dara ci suuf dimbali ko ba mu wér ba mu yoraat njabootam ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. loolu am na solo ki nga xam ne tey jii yàlla daq nañ ko ci école. Euh, vraiment ay parents amuñu nga dimbali leen ba fayal ko mu dem jàngi dara new si. Mm-hmm. kii doon def commerce aussi dem ba daanu nga dimbali ko mu def commerce ba mu amaat kattan dara new ndax yàlla du wàcc ci suuf di dimbali doomu aadama te ñun lépp nu ñu am lu nekk ñu jàpp ne sunu borom kese la ndax mënuñu amuñu kon nag te sunu wàcc ci suuf mukk di dimbali ay kenn moo tax man li ma gëm ba tey mooy doomu aadama saa yu amee na xalaat keneen su amee ñaar na joxe benn dese dese benn su amee ñett na joxe ñaar ya dese benn ndax lu lal lalu kër yi bari bari benn ci ngay dëkk lu lalu yaatu yaatu ci tuuti ngay tëtt lu oto yi bari benn benn ngay am kon am alal jurul jeex man gëwuma ko li ma gëm mooy loo am na nga ko partagé nga am na nga mën a suturloo kon social boobu boo koy def jarul nit ñi di jëlu nit ñu nga di ko publicité yàlla xam na ko ñu ko war a xam xam nañu ko aujourd'hui tey jii man gëm naa ne tey bu ma nekkee maire Diourbel social moom moo ma ko def. Mm-hmm. te ñoom ci boppam bañ ma koy def di ma dollee njukkal boobee tey jii dama nekkoon di bokk ak ñoom te yaakaar mu dara xalaatuma ko ndax bon dama daan ñëw gis dëkk bi salte ma jël samay oto ba tey samay oto ñooy daw mbalit yi bari ci dëkk bi nettoyé dëkk bi defar ko ci li ma mën. ah gis la nga xam war naa ko investir ma investir ko ci école investir ko sans pourtant ma xaar ci dara boobee nag yàlla rek a taxoon may def te ba tey yàllaa tax may def ndax booy nekk maire di liggéey mairie di liggéeyal askan bul yaakaar nit ñi ne la merci boo ko xalaatee sax da ngay jàppal ne ab natt sunu borom defal la rek ngay liggéeyal askan bi tey xaar ngor moo ngërëm ak sunu borom képp kon boo nekkee maire di liggéeyal askan wi jàppal ne sunu borom moom moo lay fay soo ko xalaatee dekk ci rek doo découragé doo gaaw a mer te xam nag liggéeyal askan wi amul dara lu ko lu ko gën ci àdduna bàyyi sa jëmm ji ngir askan dara newu ci te askan nag en jaxate kenn mën leen a fay ndax kii la def maire mu jeex mu ñëw mu defaat le député waaye wax dëgg ne yàlla loo leen defal mënoo leen fay soo mënoon dagg sa cër wi jox leen ko mbaa sa lépp mu seey tàq nga defal leen ko surtout waa njaarim man daaw ma seen fay ndax su mu fekkoon jii man mënoon naa sax ñu ne njaareem baax tey suba ma dee ma def ko ndax man lépp lu ñu ma war a defal defal ne kon ku la defal loolu nag loo xëy di sonn si ñoom loo ca defit mënoo leen fay yàlla rek moom moo am fay yàlla nañu yàlla boole fay. d'accord jërëjëf euh, mais laataa ngay nekk maire euh, fi nga xam ne moom nga duggoon di ci sóobu ci langue politique bi. Hmm. danga nga xalaat ne euh, askan wi ñoom nga doon jàppale ba askan wi sentir ne ñoom nii kat war nga mën leen représenter ci bopp mairie bi. mais bi la ciy yóbbu amoon nga ay jafe-jafe pour dem poser candidature wala boog gisoon nga coalition bi nga bokkoon wane nga fa sa doole wala ñoom wane nañ fa sa doole ba nga xam ne maanaam buuxante bi wala dugg bi jafewu woon ci yow ba nga nekk maire tey. non mais déjà ñoom ñu ci bari avant loolu xamoon ne ni Mali Fall ku ànd ak moom mën yàlla mën a defal sutura ndax nag yàlla moom mooy fal nit ñi moom voté la ñu mën waaye su fekkoon ci voté rek la. xamu nañ ko ànd ak Malick Fall yàlla mën laa defal ndam moo tax ñu ànd ci coalition ba nga xam ne ñun lu leer lañu waxoon ñun bu ku ñu àndal ku ne moom ñooy nekk maire c'était clair eh, clair net et précis ci biir loolu lañ demoon ñun ñu nekk maire coalition euh, ànd sañu gox ñeneen ñi nekk euh, conseil départemental te boobu yombutoon ndax xam nga boo bëggee dem aussi parti au pouvoir nga bëgg a dem ak moom élection du yomb du yomb yàlla rek moo lay dimbali moo lay suturaal te boobu aussi nit ñi gis nañ nii réew mi fu ñu mujj amul benn président la république fu ñuy jëm ci kanam buy imposer nit ñi kenn loolu moom c'est fini nit ñi ñooy tànnal seen bopp ku leen neex Jurbel moom amul man parti pouvoir laa bokk ak président non non ci boppam ñooy seet ki leen neex ku leen saf ñu dëkk yow ba pare nag ñoo nag léegi maire dafa war résider man sama kër yëpp fi lañ ne sama soxna yi fi lañ ne sama doom yi fi lañuy jàng fii laay yeewoo fii lay dëkk fajar fii laa koy julle jutu it fii laay julle sama lépp fi la ne sama entreprise sax fi la nekk mhm. samay impôt fi laa koy fay Jurbel nag nee nañu képp nga xam dëkkatoo fi yeewootoo ndax xam nga juddu ci dëkk euh, juddoo ci dëkk ak dëkk ci dëkk ba bokkul que dëkk Mali sax juddoo Mali ñëw dëkk njaarim jënd fi kër kook fi la dëkk ku juddoo Jurbel nag jënd kër Ndakaaru dëkkoo Jurbel da nga fee da nga fee juddoo waaye nag Ndakaaru gée nga jënd kër di fa julle fa fa nga dëkk demal nga fal foofu problème bi c'est simple comme bonjour mm-hmm. aujourd'hui ba ngeen ñëwee fii da ngeen ma fekk sama bureau fekkoo leen fi protocole bu bari gis ma jafewul mm-hmm. xam lu ko indi c'est parce que dama fee dëkk dafa yeewoo maa ngi nii dem añ sama kër naan attaay sama buntu kër xoolaat sama soxna xoolaat samay doom ñëwaat toogaat sama bureau liggéey ba 6 heures ma dem ñibbiwaat sama kër. parce que maire dafa war a résider. ay complexe la ay nit jóge ndaxaaru ñu yàlla ne kii xaritu président laak part bee ko fi indi jàppale leen ko ndax loolu xëyu na fii loolu nag lañuy ñu gëmloo doomu aadama yi moo tax ba fi ñëwee fii parti au pouvoir muy waa APR bu ñu ñëwee fii sur 76 conseils presque sept sax amuñu ko. ci jamono jooju ci jamono jooju. ñu ñëwaat élection. ah ña ma àndoon man leen nag man nag écoutez man dama jàpp ne njaaram dañ ko fàtte mhm. lu mës a xew rek duñ ci boole jurbel ci dara jurbel moom du dara dara mosu fi changé depuis le grand kenn mosu fi def dara gouvernement yi fi jaar yëpp dañ fi def dara léegi nag man président bu ma soxlaawee pour que ñu defar njaarim te amul lu dul njaarim président kat naa ko déglu uyu ah ba ñu gañee gars yi nag président aw ma ah ni ma nag ah wax dëgg ne yàlla man maire laa woon Fatick maire amul xaalis amul moyen ah duñ buggoon nga jàppale ñu man ko man na du ma dugg APR du ma APR de man li gëm sa bopp laa bokk ak gëm njaareem su fekkee am nga yéen a jàppale Diourbel am yéen a développé sama dëkk am yéen la nga xam ne man en tant que maire amuma moyen mënuma ko nga bugg koo def ci njaareem man je si prêt ma accompagner la. loolu moom wax ju leer lañ kart carte gu leer nañ la ndax ci télé lay waxee. ah bu ñu jubawee mun nangu gis nga tali yi mën na ko njaareem amul te déjà euh, transport urbain bi modernisation bi amul sareet yi ñu ngi jeexal nit ñi ëmb yi ndaw yëpp yàqu nañ ñu juboo ci yooyu yëpp nag gis ngeen macha allah ñu jàppale ñu ci yooyu lool moo tax ma ànd ak moom ba ma ànd ak moom mu gañe maanaat ak moom mu gañe quatre fois ñu ngi ànd ak moom mu gañe kon nag yàlla defal ma sutura mm. njaarim ku nu àndal daal am nañu yaakaar mën na noo gañe d' accord loolu xam naa dina ñëw ci kanam ci li nga xam ne moom mooy élection yi nga xam ne moo fi mujjee weesu ah. mais euh, fekkoon nga fi euh, euh, ku ku am ku am ci wàllu politique nga bi nga koy bi nga demee bay sóobu pour pour nekk maire xalaatoo woon ne maanaam li fi nekk comme yaa ko waxoon ne kooku moo nekkoon maire est ce que xalaatoo ne man a force bi moo fa war a demee du dul loolu force bu ndaw maanaam du du lu ndaw quoi laa fa war a demee pour jëlee ko fi non problème bi mooy nit ñi moom sëñ jaxate réew mi nax nit ñi weesu na nit ñi wax leen dëkk loo mën nga wax leen loo tële nga waxtaan ak ñoom loo mënul nga ne mënuma ko te man samay principe laay dox ndax politique du n'importe comment demul allah xiraak loo neex wax loolu man xaw ma ko ndax kenn ku nekk un jour yàlla na la yee sa bàmmeel ne la la nga doon wax ak na nga doon def foo ko te tegoon te bis bu mat a bàyyi xel la kon principe man bi may doxe man mooy man lépp lu may def damay wax nit ñi dëgg te Jurbel nag soo leen dee wax dëgg dañuy ànd ak yow kon moom moo tax man pour ma jëlee fi nit ak toog nit du woon man loolu doxumoo noonu man ba ma daan campagne dama naan képp nga xam ne ci ñun di ko xëccoo su ko gañee mu jikku jig njaaram ci ñun ko yàlla ko yàlla jox ndam kon man noonu laa daan campagne di ko wax doomu aadama kon jëlee foon nit ñi jafewul woon ci man parce que d'abord ñu bari xamoon nañ ma xam nañ ni ma daan def. xam nañ principe yi ma daan dox xam nañ na ma daan liggéey ba pare nag rax ci dolli lu lu lu waaye ma sa xewle ah buñ ma yëgalee la ma ca am dugal ci sama ñaq la ca nekk ma jël sama jëm ji dem ca teewe kon donc boobaa ba affaire ba jàllee foog naa daal pour élection yi moom jafewul woon dara te ba de yàlla ma ngi may dimbali ba vraiment affaire yi jafewul. d' accord dina ñëw ci rivalité yi nga xam ne am na fii euh, loolu moom ci kanam mais dama bëgg maanaam ñu dugg ci euh, maanaam li nga xam ne moom mooy réalisation. yi nga xam fekk ngeen fi jafe-jafe. Hmm. yóbbu ngeen ko fa nga xam ne foofu la askan wi soxla woon pour ngeen yóbbu fa li nga xam ne moom moo fi nekkoon wala moo fi doon sooxe. Hmm. ñëwoon ñu ci loolu exactement parce que maire yaakaar naa rôlam loolu la. bu hmm. demee ba fal la da laa a fa da laa fal ci nga maanaam taxawu askan wi li nga xam ne fekk nga ko fi mu sooxe. yan ak yan la ak li ngeen ci def. bon parce que boo xoolee tey jii ñun ba ñuy teel a ñëw avant marché bi di lakk vraiment karaloo nañ ko ba mu rafet mu lakk. mais ba marché Ndoumbé Diop lakkee gis nga Sénégal marché lakk yëpp moom lañ ci démarré di ko tabax te boo demee marché ba tey ji ñu ngi koy tabax vraiment xam naa léegi mu pare soo ñëwee ci gare routière bi aussi boo xoolee moom mosaan dugg ndox mi day taa yooyu yëpp réaliser nañ ko électrification école yi bëri réaliser nañ ko benn forage moderne réalisé nañ ko ñaari poste de santé nguy ak mbaqaan te ubbeeguñ ko réaliser nañ ko il y a 12 kilomètres 500 de route avec Promoville yu bees tàq avec des éclairages modernes réaliser nañ ba ñu ñëwee fii modernisation transport urbain amutoon ay charrette la woon léegi yooyu yëpp réali réalisé nañ ko donc kon pour wax la rek tey ji ñun ñu réalisé donc am na boo xoolee en ah, kii bi euh, ci quartier yi y a plus de vingt kilomètres yi nga xam ne euh, euh, kii éclairage public ak yokkaat courant bi yooyu yëpp réaliser nañ ko donc boo xoolee yi ñu réaliser ci Baie Dieuffer am na am na aussi lotissement bi nga xam ne plus de 4000 logements déjà ñu ngi koy ñu ngi nekk actuellement ñu ngi koy réaliser dans un mois war na mën a pare ba pare nag ba pare nag ñu ñu defar assainissement ci biir viabiliser ko pour mille pour mille terrain ñu yooyu yëpp ñu war ko def mm-hmm. loolu mooy li nga xam ni ci gàttal rek li nga xam mën naa ko jël ramasser ko noonu ndax bu ma ko préparé woon daa gën a mën a wax yu bëree bëri sur le plan de l' ñu ci def sur le plan la santé mais boo jógee. ñaar yooyu ñoo ëpp doole waxal ma ci ñaar yooyu plan éducation xam nga loolu domaine mairie la. Euh, santé tamit naka noonu wax nga ci ñaari post yoo xam ne nii. voilà euh, dafa euh, taxawoon ngeen ko fi. mais des na quand ci loo xam ne maanaam éducation am na loo xam ne war ngeen ko mën a apporter parce que Diourbel ci njàng moom ku nekk xam na maanaam li fi am. ndax boo xoolee chaque année. dinañ jël euh, ji euh, écoles yi dinañ leen fournir plus de quinze millions ci ay fournitures scolaire en même temps daara yi daara yi sax dinañ di jox ñoom ñëpp dañ ciy bokk mur de clôture yi en même temps actuellement ñu ñu ngi koy defar am nañ prévision ñu ngi defar ci mur de clôture yi écoles yi fii Diourbel benn école léegi dootul faytu ndox lépp jël nañ ko jël nañ ko en compte donc en même temps encore sur le ci affaire partenariat aussi réglé nañu ay partenaires yoo xam ñu ngi mën a jàppale encore ci affaire éducation di former ay xale ba ñeent démb barki démb am na ay étudiants yoo xam ne formé nañ nangam beneen aussi étudiants yi aussi ci sama salaire député ndax man salaire bi jàpp naa moomuma ko maa ngi leen di fayal logement Dakar étudiants yi Ndar yu Bambey yu Thiès chaque année ma jox leen subvention ci salaire député bi kon maag salaire bi dama ko séddoo ak askan bi kooku mu clair aussi. bon léegi boo xoolee en même temps fii aussi pour li ngay wax lu ñu prévoir en deux mille vingt prévoir deux mille dix neuf bii prévoir nañu quatre portiques saa booy dugg jurbel ak Dakar ak euh, côté bi euh, péage ak fii comme booy nekk Touba. portique yi ngand yooyu. prévoir nañ mais ah da ngeen mais non mais ah, copier. copier pour taaral. waaw parce que bu man ñu dañ jàpp ne portique bi. Mhm. léegi warut a nekk rek portique noonu dañu war dañ ko war a defaraat aménager ko ba ko voyager fu sori boo ñëwee nga mën fa naan sa café yooyu dafa ay jardin dafa ay pan public voilà mais duñ ko def mu taxaw noonu rek mais dañ ko war aménager donc suba demain la architecte di ñëw ak plan yi pour wan ñu ko pour ñu valider ko en deux mille dix neuf normalement ñu war ko def cadre yi en même temps en deux euh, ba pare ñu en deux mille vingt nañ tamit def deux cent millions ci booy dugg entrée ville bi mu mel ni comme Thiès comme Touba ñu def ko entre ay ay lampe ay lampe moderne pour deux cent millions peut en même temps def cent millions ay pavage yu rafet nag xam boo dugg tey Ndiaye ba nga xam yaa ngi dugg ci grande ville bi en même temps prévoir nañu pour assainissement mbalit mi ay oto mbalit yu bari war nañ ko jënd euh, y compris deux bentas yi war a jóge Europe yi ñëw donc war na ñëw fii ak ay quatre mois pour ñu pour que nag dëkk bi ma am dëkk bu gën a set ci Diourbel boo duggee yaa ngi jigéen ñu ni ñuy bale 121 personnes ñu ngi leen jël ñuy vale dina fay 93 millions par par année ci pour dëkk bi set mais bu ngeen gisee yéen gis ngeen dëkk bi nu mu changé en aussi am nañ en 2020 2020 bi aussi 50 millions li nga ko def ci adduction d'eau l'argent est disponible ah du ay pré prévu kii la plan de travail parce que deux milliards quelque te dans le cadre e même temps aussi euh, aménage bi euh, ak marché syndicat bu bees boo xam ne dafa fruit en même temps sóoraal nañ ko ci en bi deux mille vingt bii aussi état civil bi lancé nañ appel d'offre bi benn entrepreneur gagné na ko dañ koy def étage mu nekk étage wu bees informatisation bi c'est bon léegi dañuy jënd ay ordinateurs yëpp pour que l'informatisation bi mu effectif carrément nga xam ne foo toll mën nga dugal jël ci kii bi état civil. Euh, kii complet frigorifique dañ ko tabax ci machine Ndoumbé Diop. ça y est entrepreneur bi suba jeudi lañ ko yóbbu DSMP pour que valider ko ñu dafa benn frigo bu rafet ba nga xam ne léegi jaaykatu jën yi tu nangu ñuy jaay jën di ko denc muy sax ak yooyu loolu mënta nekk même jaaykatu yàpp yi fa lañ ci biir marché bi lañ koy def y'a deux cent millions yoo nga xam ne sooy ko moo ko gañ a bërki jëm encore pour defaraat nœud de nœud de poule yu nekk ci tal yëpp deux cent millions la ñu bokk nag cent trente sept millions yoo nga xam ne war nañ ko jënd ay benn tase lépp nag yooyu moom lancé nañ appel d'offre yi kii 2020 la ñu war def lii 2000 2020 la ñu def ni 2021 y aura encore dañuy yokkalaat éclairage public yi yokkalaat pavage yi tabax benn stade municipal à Ndiodione c'est en 2021 loolu aussi mu ngi ci donc 2020 2022 amaan nañu même chose 2023 am nañu yëpp donc kon bu ma ko bëggee cité. émission bi du fi jóge. donc euh, euh, foofu loolu euh, wax ngeen ci lu bëri ci loo xam ne ay réalisation ak tamit ay projets yu ngeen am ci maanaam 2019 2020 mais yéen yéen les maires souvent damay dégg seen problème ak les jeunes ba léegi li nga wax nii dégguma ci foo xam ne maanaam jeunes yi dana ci gis seen bopp lu dul stade bi nga mujjee tudd léegi. Hmm. lu waral loolu yéen ak jeunes yi lan mooy seen problème. non man awma problème ak jeunes ndax am na ñu ñëw fii yëpp ñu ngi doon liggéey ci petite catégorie keroog ñu ngi doon def formation pour ay ñuy def karaté ak ñuy def ay yooyu yëpp euh, en même temps aussi defal nañu formation euh, initiateur ci affaire football bi donc sport bi ñu cest xam nga lu ma lu ma dul accepté nit ñi di ko wax des fois te sama problème peut-être ñu ngi koy wax ak ma Diourbel ndax boo xoolee parce que trois ans def ñu coupe maire trois ans def trois ans def ñu coupe maire en même temps subven subvention yi ren la ñu décidé pour joxe subvention parce que dama ne waa nawetaan nit ñi dañu jàpp nawetaan mooy jeunesse non daara yi ñu ne ci daara yi ay jeunes lañu étudiants yi ay jeunes lañu ñu def basket ay jeunes lañu ñu def handball ay jeunes lañu ainsi de suite de suite donc nawetaan bu ko jël rek ni boo jubóowul ak waa nawetaan rek jubóog jeunesse bi je suis pas d'accord parce que culture ay jeunes la ñu. ay jeunes la ñu. kon et puis football rek aussi du sport ci la bokk na jël 60 pour cent mais man li ma gës sama politique te li ma gëm mooy sport bi laa war a jàpp te sport bi ci la ñëpp nekk kon man du ma jël benn montant kese yemale ko ci lépp nawetaan kese nawetaan du football am na ligue ana ligue bi. ana division régionale yi te ñooñu ñooñu bu ñu doon appuyer ñooñu war gën a appuyer pour que ñoom ñu dem football ñu dégg équipe de Mbacké à travers le Sénégal mu dem football yi mais nawetaan ci gox bi rek la yem. léegi nag mu ne waa nawetaan dañ leen déggoo ñu waxtaan léegi man li ma d'accord mooy subvention maire dañ leen jubóo est-ce que jaadu na ñu ngeen demande subvention bu bu vacance jotee benn acteur de vacance du ngeen du ngeen dagg garab du ngeen def cours de vacance du ngeen curé. dara du ngeen ko jàppale seen koñ lépp rek na leen maire jox rek te en retour les nawetaan qu'est-ce qu'ils font pour la ville non nee naa leen ñun di d'accord nañ subvention mais convention la ñu signé ASC bu ndakk def ay activités de vacances sa koñ nga jot subvention maire ku ko ci defut ñu téye suñu subvention. mais structure bi nga xam ne moo ngeen ko nawetaan yi nag ñoom est-ce que. waxtaan nañu juboo nañu. juboo nañu ndax par exemple de structures fi amoon nit da war gëm sa bopp bu waa Ndakaaru xuloo di politique ña ca kaw xuloo ñun waa Jurbel ñu xuloo structure ci dakaar bu ñu bu ñu juboo ñun waa structure Jurbel juboo ma la yéen ñi bokk nawetaan dëkk fii lu seen yoon ci waa Ndakaaru léegi ñaari structure kii def fii benn kii def fi benn ba man may defee coupe maire ku ma koy defal mais Dieu merci juboo nañu ren ñanaal nag pour ma mën def coupe maire da ngeen nekk benn ndax man mënumaa xar mairie bi ñaar juboo dañoo ren nekk nañu benn moo tax stade euh, moo tax stade mu ngi neexaat subvention yi génn naa huit million ñu ngi waxtaan waaw pour ñu waxtaan nag ci jubo fan yi ñëw ñu juboo léegi nag kenn ku ne lan nga mën a defal maire sa koñ. yow kon da ngay dara ci ñun. mais ah mais c'est ça la vérité parce que xaalis bi ci askan bi lu jógee. xaalis bi dugg comme wax nga ko may indi loo xam ne maanaam dana servir askan bi nga xam ne ñoom ngeen dëkkal. seen koñ. waaw ci seen koñ. dagg paftan ya. bay koñ ba. ñax defaraat ko. waaw jàngale cours de vacances. jàppale seen rakk yi. bu amul dund laal subvention. ah mais ñu ngi ni teel a laay wax jubóo nanu xam nga bëgguma moo indi ay poli ma ndax maa ngi maa ngi maa ngi ñetti at. ñu ngi defante. ba kenn ku ne xam sa moroom xam ne man yàlla moo fi teg man suba tey ma neexoon bàyyi mairie bi man dama naan ab maire dafa am métier. di dund ñaqam bañ ak bañ a bañ a téye ci mairie rek foog ne mairie rek mooy mairie da fi ne pour jaamu yàlla. bu nu bàyyee suba dañuy delluwaat suñu moo tax ñoom waxtaan nañu ba juboo nañu pour que ñu ànd def nawetaan yu neex teg ko ci yoon waaye nag mu nekk la nga xam ni dañ koy réformer waat organiser waat ko ba seen nawetaan ku ci nekk gis sa bopp loolu mooy wax ji. benn équipe de moo fi am muy sino war bu mag hmm. bi nga xam ne yàgg nga ko xam mais am na yeneen équipe yoo xam ne division régionale bi te ñu bari lool rawatina ci région bi te moo ñëw fexee ba dépassé fi ñu nekk yaakaar naa loolu xam nga ci dara lu waral loolu footballu Jurbel moo des gannaaw ak sinon bi nga xam ne jàpp nga ne euh, problème ay amoon nañ ko ay jafe-jafe yooyu xam naa loolu côté technique sax xam naa doo ci wax hmm. mais ci dégg-dégg ak yow maire ban assistant nga war a am ci côté yooyu man li ma wax toujours sama logique la suñu or équipe bu suñu la usine beeku moom moom ma nga nekk ci commune Ngoye man nag commune Diourbel laa nekk hmm. xam commune Ngoye commune Mbacké commune Diourbel bokkuñu. kon foog naa division bu ci nekk foog naa sa sa sa commune moo la tax a jóg. soo dee bëggee nag bu la neexee région bi jàpp la nee naa leen ñun tànk nekkuñu benn duñu xalaate benn booluñu suñu doole fu ñu jëm du sori parce que mënuñu nekk ci euh, ville bu toll nii presque division régionale yu dul jeex joueur yu dul jeex moyens yu dul jeex imaginal boo amoon di millions bëgg leen ko may. si dix équipes ku ne un million la am ban ban problème mën a rek waaw mais jël leen ngeen def ko ñaari équipe yu am doole bu doon dix million sax ku ci ne nga jox ko cinq million mu dem su ko defee ñu ñu yaakaar gañe xam nga esport Sénégal nit ñi dañ dul waxtaan mais gis nga mënoo ne fépp te imaginal bon xam naa basket mën nañ maa mere waaye booy def équipe nationale coupe du monde basket mu leen a gars yi doo fa jële dara mbaa fii yow mënoo fi dara athlétisme bi liggéeyal ba dëgër nga doog a dem waaye dama naan dañuy dem parce que war a bokk participer pour ñu revenir mais finalement sport bi du ñëpp luñ ci mën am man na li ma gëm mooy wax naa leen ko keroog dajal leen ngeen am équipe bu am doole baa ñaar ñëpp ñu def ci suñu moyen ñu dem seen yoon am résultat loolu mooy tax football bi mën a avancer tout en sachant aussi xam ne euh, jeunes yi duñu football rek damay bëgg jaxate jàppal ne ñun ñu ngi jàppale euh, karatéka yi waa handball fii lañ ñëw mën leen est ce que mën ngeen dem première division ñu ne waaw mën leen lu ngeen soxla ñu ne boo ñu joxee temps ci xaalis ñu dem première division ma génn ko xobbet jox leen déer ñu ñëw dem première division handball boobu du ñu ay jeune basketteurs yi léegi laa jox ak ñoom pour jox leen euh, fële ñuy def basket léegi laa ne ñoo li ma jox leen benn benn terrain de basket bu normal maa ngi tabax léegi fee benn plateau maa ngi tabax benn plateau multifonctionnel à Cheikh Anta c'est pour la jeunesse oui oui oui donc kon bu ñu caricaturer rek jeunesse yëpp nawetaan la ku joteeg nawetaan ñu ne maire bi jote na ak jeunes yi loolu te mes jeunes mes amis journal et puis nag jàppale de subvention de par force yéen jàppale leen ma ci ñu subvention boo boo amee joxe boo amul du par force binduñu fenn ni par force le maire de force subvention ASC ASC nag du ASC de football association sportive et te bu ma votoon dix millions ASC su ma ko jëlee jox ko culture mais def ma détournement d'objectif parce que culture ci la bokk mais nit ñi nag seen entendement nag ASC nag pour ñoom nawetaan la rek. donc Malick Fall maire bu commune de Diourbel moom la ñu daal seen émission découverte même monsieur le maire sànq damay ñëwaat nag ci li nga xam ne moom nga ko doon wax ci biir réalisation mooy booy dugg ci dëkk bi taaral nga ko booy euh, def fa ay kii yooyu ay la. mais taaral ci bunt bàyyi ci biir moom loolu nu ko xel mën a nangoo. non est-ce que desul. non biir bi boo xoolee tey ci biir ñu ngi tabax hôtel bi. fàtte naa ko hôtel bi avancé na dem ne Diourbel ak li muy rëy hôtel boo xam ne nii am nañu hôtel ba nga xam ni ma wax la pro projet Diourbel bu matee. Mhm. ñu ci bari ci Touba dañuy ñëwaat Njaareem. lu bari lu nekkoon. maa la wax lu te loolu laa gëm ndax capitale Sénégal fii la Diourbel gii la du feneen. Ah. dañuy ñëwaat. Touba lu tax ma wax la loolu parce que tey hôtel bi 112 chambres la quatre suites présidentielles ak deux piscines donc montant de deux milliards trois cent et quelques millions da bokk bokk ci hôtel yi gën a bon Sénégal te centre lay nekk bon ñu ngi waaj a tabax fi benn marché international sous régional bu trois milliards huit cent mbay fay moo ko gagné te marché ñu ngi koy tabax ci euh, euh, wetu Ila Touba léegi na man dama gëm ni Londres amul pétrole te lu ñuy négocier ci pétrole àdduna bépp Londres la bëgg naa business bi ñuy liggéey ci Sénégal njaaram lay nekk te équipement yi fa a am reyante na bi équipement yi am na hôtel am na fi aéroport bi foog naa moo boo ko doon dox di dem biir dakaar foog naa ñëw njaaram ma gën a gaaw de donc kon képp kuy business da nga ñëw business te nag euh, marché boobu ñuy tabax du marché comme marché yi dafa am souterrain am ay salle d' salle auditorium am am am hôtel am ay banque am yëpp léegi nag képp kuy négocier ti da nga ñëw négocier la nga négocier dem donc nag léegi boobu bu paree nag te boo ñëwee ay vingt cinq minutes nga dem Touba te infrastructure bi bii am nit mën na jóge fee jël Ila Touba ñëw def ay business bu ngoonee mu dem te kon léegi bu ñu ko joxee équipement yi ñiy daje ci seen ñi jóge Gàmbi ñëw ñu jóge Kaolack ñëw ñu daje fi kon waa Touba dañ fi ñëw daje njaareem dundaat juddu gu motu équipement bu mu manqué woon mu amaat moo tax boo ne ci fii nga jënd parc d'attraction la un milliard trois cent nañ ko fi jënd ak mairie bi yàgg na de ma manège bu mag la non c'est que c'est que aussi te indi problème mooy comme ni nga ko wax tension budgétaire bi la voilà entrepreneur bi ci boppam vraiment mu bëgg ci mais mais décompte bi ñoo xaw am. blocage alors sur de l' assainissement euh, dex gi na ma yàlla baal dex la saxoon. Euh, ci taarix. Euh, ba léegi ndox moo xam ne ni maanaam danoon fekkante nawet ak nawet. Hmm. loolu est-ce que mairie bi xalaat na ci ay projet pour maanaam bën kaa jëm gi. si ndax tey boo xoolee barki démb sélectionné nañu quatre xale. pour ñu dem Bourges parce que bañ nee Bourges aussi tubaab ñëw nañu fii ñoom nee nañ mën nañ ko defaraat. muy xóot-xóot bi. waaw sélectionné nañu quatre xale. donc sélectionné nañu deux mu des deux après ñu xool donc commission bi pareegul moo tax bëgguma ci prononcé barki démb lañu. tubaab bi ñëw nañ ba prononcé deux ñu yóbbu France ñu jàngal leen ñu koy dund la waate tubaab bi tamit octobre octobre ñun la ñuy dem suñu xale yi quatre xale ñoom tamit ñoom la ñuy indi quatre xale octobre ñoom pour ñu xool dex gi. seet ni ñu koy dundalawaate delluwaat France ñun tamit ñëwaat pour que ñu mën ko dundaat. ndox mu yëpp dafa mel ne fi muy ci biir génnul dëkk bi de. si génn na génn na dañ koy yóbbu kàmb suuf. parce que li nekk marché projet bu ko génne quoi. Ah, projet bi nga. c'est-à-dire parce que est que jegewul marché bi foofu marché bi. foofu dem na am nañu am nañu ñaari ñaari station de pompage créé nañ ko benn aroq bu sew. benn créé nañ ko au niveau du mar euh, au niveau de Ngolomit léegi ndox mi. su tawatee da koy tiire yóbbu ko kamb suuf. Euh, mu ngi génn ndox ma ngi génn. ndox maa ngi génn. Hmm. Euh, dañuy daal ñëw fii nga xam ni moom mooy euh, dëkk bi nga xam ne mairie la. boo xam ne maanaam élection yaa ngi waaj ñëw mais am na ñu fi yëngut ci wàllu social mën naa su def tur. Ah, mi ngi Mangara bi ngi def social. est-ce que soxlawul mairie bi est-ce que tamit opposition bu taxaw xaraw mën a mën a jàmmaarloo yow pour élection yi di ñëw. Hmm. sentir nga ko ba mën a mën a defarwaat waaw mais man xam nga man bis mu ne dama naa man je vis au jour mm-hmm. euh, la may dund euh, chaque jour def li ma war a def lu ci ne nga bàyyi ko sa loxo sa yàlla ndax man ñëw ma tax damay falwaat mm-hmm. ndax sañ entretien bu eggee sunu borom la la mat la neex li ma amal njëriñ daal mooy su ma demee ba mandat bi jeex ñi taxoon ñu dénkoon ma dëkk bi daal bu ñu ma jéppi ci jub ak jubal ak xeexal leen nag ba fa ma ko fekkoon ci point bi yóbbu ko ci point bi keneen kay falawaat la su ñëwee nag bu falawaatee fekk na dina am chance ma bàyyil ko fi la nga xam ne tey bu ñëwee na mën a continuer ndax kay falawaat daal lu ci gàttal su fekkee man mii la te bu ma ci falawaatee projet yi arrêté. yaa ngi bëggaat. te projet yi yàlla bu ma falawaat ndax bu ma naree falawaat sax te njaaram nar ci arrêté yàlla na yàlla rey ka nga xam ne jik na ko ëllëg bu ko falawaatee maire bi ñëw. projet yi kon ne avancé kookee yàlla na ko yàlla fal am nga man xoolatuma sama bopp kon ka war a ñëw falwaat na xam ne rek ñun ay doomu njaaram la ñu woon dañoo nekkoon bàyyi faal rek ndax fii locataire rek la nu fi moomuñu ko bureau bi du bureau kenn ni laa ko fekkoon damay dem les hommes pas les gens stress mais l'histoire lay retenir ba nga fi nekkee lan nga fi def lan nga fi wax ak lan nga fi réaliser kon kenn kuy xeex ku ne war ngaa xeex loolee te loolu am solo te maa ngi sant yàlla baax ci côté boobu. monsieur euh, dëgg dëgg dëgg nga fi mu ne ji nga ma APR hmm. ah ma APR. mais yaa ngi liggéey ak xam nañ. mais gouvernement APR maanaam nga xam ne moom la nit ñëpp di wax. président Macky Sall laay jàppale moom laay jàppale bu baax di ko jàppale à 500 pour cent ndax. Hmm. li mu def ci commune Diourbel bi benn président mosu ko cee def. te ñëpp a ci teg seen bët te man jomm naa di fen mbaa di wax la nga xam ko dégg xam ne kii lu muy amul ki la defal nag la nga mënta defal sa dëkk te man njaareem ji ko ko defar ba mu baax boo demee demal nga weeru ca naaj bi ma dem weeru ci tàng naaj bi damaa gënal sama jëmm ji mm. te ba mu ñëwee defal ma la nga xam ne fii gisuguma kenn def ko fi moo tax moom laay jàppale te moom laa jàppale woon te moom laa jàppale ba mu fal président la république yàlla na ko yàlla yokk. sentiroo fi opposition. <laughs> non mais c'est normal. xam nga ci commune bi. mais comme mais am na opposition. tax ñuy wax ñu ne pour ñu jëlee la non ne xam nga am na opposition am na nit ñi nga xam ne bëgg nañu nekk maire c'est légitime ndax ku yàlla bind ci àdduna mhm. soo sañoon nekk député baa nga nekk maire kon ñooñu tey bu ñu ko bëggee nangul naa leen ko kon mbir la ma nga xam ni àdduna moom nañuy rafetal rek man gëwuma opposition man maay maire ñëpp kon tey bi ñun njaareem yàlla defal nañu sutura ñun ñu fi def leader politique yëpp. kenn mosu fi saaga sa morom kenn mosu fi xas sa morom dañuy rafetal rek te képp ku fi politique ngay politique opposition ànd ak pouvoir ku waxal Malick Fall xaritu ñëpp la am na jàmm ñëpp la man wax lu rafet dox lu rafet ante ñu ñun ñu rafet ba bu ëllëgee keneen ko nga xam ne falu nga fii boo fi nekkaatee da ngay bëgg ñu waxal la lu rafet. te ko man bëgg naa ñu di ma ko bëgg naa di ma ko waxal kon ña nekk opposition dama leen di jàpp comme samay doomu ndey man daal dama am jàmm ñëpp. di ñaan yàlla daal ñi fi nekk li ñu boole mën ñu koo dagg mën ñu koo dagg yóbbu moo xam nga opposition nga xam ne pouvoir ku ci ne sa yéene mooy njaareem nga defar ko ma loolu laa gëm. d'accord kon fu nu mën nekk rek nañu rafetal te xam ne lu ñu bokk mën ñu ko changer dindi ki ne ministre tey ak ne mi nekk maire mais bu nu bokkul boor ndax man gëm sa bopp laa nekk daam jom ministre la nekk waaye bu nu booloowee suñu xalaat déedéet ma sa bopp Jurbel ñun ba ñu am gëm sa bopp bëggaan daa am gëm sa bopp waaw ah. ah, ñu dañoo gëm seen bopp da ñu duñ daw duñ arrière kon ñun suñu mouvement bi ñu yor ànd ak <coughs> Macky Sall di ko liggéey Dame Diop nekk ministre de la République a nekk ca kaw di xëcc ma ma nekk maire di xëcc bu nu boolooyee rek même bu fekkee bokkuñu camp politique njaare moo ñu boole lu ñu am dañu ko indi ak keneen ak keneen même Birima Mangara ba mu nekkee ministre il nous a beaucoup soutenu il nous a parce que projet yi bëri na fii en tant que maire su ma demee ba ci biir am problème financement yi am problème bel bi laay birima tey mooñ ci doon jàpp en tant que yàlla na ko yàlla fay. waaw parce que man ku defal lu baax njaare moo am. mais mu toll région de Diourbel laay wax euh, est-ce que benn ministre de la République rek doy na pour région de Diourbel bi yëpp. waaw mais c'est normal dans la mesure tey aujourd'hui tey boo xoolee ministre Dame Diop mu ngi fii ministre euh, Touba tamit am na ministre conseil sëñ bi c'est normal bon léegi nag boo xoolee nag léegi comme léegi président dane woon dafa bëgg a wàññi ministre yi ah léegi nag wax dëgg neex yàlla tamit euh, tey ci président exemple région bu ne bëgg a ñam ah ñun nag bu nu amee beneen baax na bu ñu amee juróom baax na ndax nit ku nit ku baax du doy nit ku baax day doylu waaye day am ambition waaye comme ñun am nañu benn ministre vraiment mu nekk daam Diop di ko ñaana yàlla yàlla na ko yàlla defal ndam ci lu ko suñu borom dénk bokkuñu camp politique waaye nit da ngay yéene sa bopp jàmm dangay ngay yéene sa da yéena eh, nit jàmm ak salaam. kon Dame Diop moom lañ def président moom la président fal yàlla na ko yàlla jàppale. Euh, muy euh, ki nga xam moom mooy euh, hmm. eh, ne maanaam. ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax askan waaye ndax njaareem gis na ci boppam ci wàllu koom. no xam nga nit ñi man ni ñuy gisee autoroute ak man ni ma koy gisee dafa bokk gis nga boo demee Europe mhm. da ngay xam ne autoroute sax du jaar ci ay ville mhm. ville la koy développé mu ngay jóge ci askan te gis nga njaarim gi Malick Fall la rek du moom moo mën a développé Diourbel askanu njaarim ñoo mën développé dëkk Obama ba muy nekk président États-Unis discours rek la fa nekk américains ñoo liggéey la fa nekk lépp man dama gëm ni chaque personne aujourd'hui yaa war a jàpp ne yaay sa maire buntu kër la la war yaa ko war def lay tax sa njaarim ndox yaa ko war def mais il a du autorité moo ñuy développé parce que bi aujourd'hui man dama gis ni nii mu mel ni moo gën ci njaarim parce que diggante Diourbel ak autorité bi mën nañ fa def ay ay viabilisation yu bari mën nañ fa dundal lu bari mën nañ fa def ay station service mën nañ fa def ay ay HLM mën nañ diggante autoroute ak fii mais bu ñëwoon mbokk ñu tey mais lu ñu fi def ci diggante bi duñ fa benn investissement man fa laa gis ni autoroute bi ni mu mel ni baax na donc donc kon dara newu ci kon diggante Diourbel ak autoroute programme bu ne mën nañ ko cee def kon loolu lu baax la te autoroute du jaar ci dëkk da ngay romb dem sa yoon ñun nañu dajaloo waa njaarim ànd liggéey te yow fajar man léegi laa yow faja julli ba pare toog benn booy yooyu yore mburu di dawal ma ne ki ma dendel kii de bu ay une heure dina ñam dara de boy bi ma gis mu mii jotee dina am ñam dara de waaye booy yi ne fi ci stade ba 4 heures du matin nga yeew toog ba midi naan yaay ana mburu nga yeew naan nekk naan dëkk bi doxut foog naa du gaaw dox ceew de non gis nga mes amis ma wax la leen anecdote man entrepreneur laa am na benn jour ma nekk euh, mer fële Mermoz di tabax gis ñetti booy ñoo daq pel ci réew mi nangoon liggéey ma dem ba ci kii euh, sama gardien bi trois mois yi jot mu leen fay ko ñu ne ay quatre cent et quelque mille ma ne waaw yow euh, kii Dieng booy boo booy fii fu ñu denc bi xaalis mu ne ma non booy ay étudiant la ma ne ko étudiant ñun ma waaw te booy boo leen doon romb mënoo xalaat sax ni mën nañ làkk tubaab ma ne booy mais quel est le problème ñu ne ñun suñu parents duñu pauvre doole te chaque année ñu war dañu fayal vingt cinq def si ñun ba toll fii ñun bu ñu fayee ko dañuy fay euh, vingt cin mille fay jënd yëri laaj ñu ne ko suñu parents yi dama ni la étudiant teewut bu wakkaa jotee nga dem liggéey dem ñàkk sa doole dóor waar man sama bàyyi presque milliardaire la woon damaa jël alalam sànni fële dem di jëngu di jaay fëgg jaay comme leen ko waxee ba yàlla may ma lu ma may tey nit dangay nangoo liggéey. seen émission découverte euh, ñu ngi daloon monsieur le maire bu commune bu Diourbel Malick Fall euh, kàddu yi ngay tàggatoo rek ci askan wi lay seetaan ak noo gisee tamit liggéey bu waa 28 pro xam ne ñoom loolu si tey. bon di li di ko rafetlu bu baax ndax ñi nga àndal yëpp vraiment ay xale yu baax laa gis ñu nangoo liggéey yu gëm seen liggéey ñu yaru aussi euh, yéen tamit li ma lay wax ngeen gëm seen bopp rek ndax tey ku ma waxoon tey fii naa fi egsi. du ma gëm sax ni naa fi egsi ndax bokk mës a bokk sama projet waaye nag yàlla mooy def nit ku nekk rek ak lu mu la bëgg a def mu def waaye man gëm naa ni lépp lu ma mës a dugg rek am fula ak fayda am ngor ak xeex moom ma ko may kon yéen tamit li ngeen dugg na nga ci def seen fula seen fayda ak seen ngor te ngeen bañ a yàkkamte te ngeen di waxante dëgg seen biir tey mu muñalante xam ne yoon wi du gaaw dina yàgg dina metti waaye ngor ak ful ak fayta képp mën nañ ci mën a eggale ak ak yërëmante seen biir te wóolante nag seen biir te ngeen gën sonn liggéey li ngeen def nag tëb bett ma rek mu ñëw waxtaan ak man lu ma rafetlu na ndax man communication ñemuma ko trop ndax nu mu baaxee noonu la lay yàqale te bal buy génn danaan tël te man lu ma sentir rek laay wax moo tax vraiment tey bu ngeen ñëwee sax ba c'est la première fois nag xam naa wax dëgg ne yàlla moom bu ma génnee tel nee na monsieur le maire moom bi ñu daan dégg Mbàkke partout ndax ma ñu bari tey suñu ma xamee xëj na réalisation lañ ma xamee waaye xamuñu sama jëmm waaye kon tey li ngeen li ngeen am ni tey xëj na seen nangoo liggéey ak sérieux moo tax ngeen am ko donc di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla jàppale kàtt na leen di rafetlu bu baax liggéey bi ah yàlla neen de ba ngeen raw télé yëpp rajo yëpp ay xale ngeen ngeen a gën a góorgóor na gën a laxasu rek xam ne li am solo ci àdduna mooy liggéey te ngeen koy rafetal nag du ko sellal bañ a nekk bañ mel ni ñeneen yi mooy li may wax rek su si lu ñu defaru mën nañ koo defar waaye lu yàqit mën nañ koo yàq bu ngeen gisee lu rafet génn leen su ngeen gisee lu ñaaw ngeen rafetal ko ba mu gën a rafet ana benn euh, journal ma gisoon mu bind ni région bépp sida ci Sénégal Diourbel man ko lii kenn waru ko bind même boo amee waroo ko bind ndax man sama doom yi ma bëgg a may fu ma leen di may sama ah léegi xale bu góor bu jóge Jurbel bëgg a takk bëgg a takk jabar ñu ne région de Jurbel Touba ci la bokk du la may jabar